ah surtout 48 ah. wilaay gazé d' accord xam naa ne lii dama leen koy boole ndax xam naa ne ñu desee. Ah. bareetul xaaral moom mu ñu sama pensée tuuti foofu rek. Mhm. parce man bi ma duggee foofu. man 4 laa entré. après ñu àndandoo gars yi ñu saaroo ma entré 4 ma entré 4 man dama benn xam nga kaso da ngay tëddee xel quoi. Mhm. gars yi am na esprit bi ñu tëddee kaso. mais man dama dugg bi ma duggee rek après ma changé changé avis quoi carrément sama beneen ma jël ko yóbbu ko feneen. dama war a indi ngé dama indi xel moo xam ne nag damay bokk quoi ma teg benn stratégie comme ça gars yi bu ñu bëgg a tëdd ma xaar bu guddi avant ñuy placé fekk nag bon xaw naa sonn waaw avant waaw paquet quoi dana am tëdd léegi man dama dugg teg jël man dama dugg waaw man ni ma duggee dama jël à droite xool côté bi nga xam ne maanaam ma placé mu yëg si nambalaay yëg foofu mais avant yuy euh, def placé ma xaw am lu may metti ma toog noonu si catu kii bi naan balaa bi tëdd ma ba léegi de gars yi na dama tëdd ma toog ma toog bokk ma ne gars yi ma fëgal porte bi ma dem infirmerie naa ma oh non la porte bi bu ko xalaat sax seetu sàmm bi xam naa dana ma dégg ma xaw a malaat maa ngi sonn ma toog toog toog toog ba booy tëdd tëdd ay minuit minuit minuit quelque ma toog ma ne dana ma fëgal bunt bi ma ne ma ne ma dem ba si moom ma ne dama feebar dama malaat sa responsabilité nag ngay jël man tey laa entré dama malaat fëgal ma dem infirmerie ma ne demal dana la fëgal moo toogaat ay trente mille kenn fëggul booy naa ma demal tëddal gannaaw tëddal doo fii xam ne fii kenn dul fëggal porte ma existé résisté moom ba mu fëggal ma port bi c'est king chef de chambre mu dem léegi ni ma stage yi ma def mooy dama ma dem toog ay trois heures de temps pour rey temps bi la nuit quoi léegi bu ma ñëwaatee damay obligé mën a tëdd après ma am place tëdd mooy xëy noonu laa adapté après ma xam ne may def ba koor gi jeex foofu koor ki weer koor ki dafa mu fekk war naa lépp ba damay loolu moom gën a neex man sama parcours bi ma jaar si kaso woor naa ko mu jeex takk si biir koor gi si laa dem ma miitee ma dem 43 bu demee 43 nekk fa tamit tëdd ko ak normal ak ngor am ñu mu fekk ñu dem nànk-nànk ba am sama place gérer fa lu bëri <coughs> waaw dafa fees waaw léegi noonu laa def léegi noonu naa def ba am fa place toog gérer ba yàlla dogal comme ni waxee nii rek un jour ñuy xëy woo léegi la man nag may génn man maay toog sama ko place boobu da ngay am place spéciale changé ma télé woo ma ni loo <laughs> moo jekki mu ne ma waaw moom ma wuyu seet Sonko léegi mu ñëwee seet Sonko ne ma moo loo ah rey quoi gars yi rey loo loo moo tax mu ne ma seen mandat dépôt mokk ko si laa commencé daal sax gars di yuux gars rangal mu nii ba ni may génnee quoi si laa génnee mais nag foofu euh, ñëpp fa war dem gis nga li mu wax sànq da nga xam ñu bon xam fa ñu baax te yow boo génnee yaa xam bi ngay jël bu la neexee nga nekk bandi bu la neexee nga nekk bragas bu neexee nga def nekk agresseur heureuse malheureusement Ousmane Sonko ñu ànd moom ñëpp gumu ne am na koo xam ne def lu bon mooy gars yi ay ouvrier la na ah. responsabilité am liggéey loolu lan def ba génn mais aussi may ñuy remercier tamit benn affaire dafa am ndox da doon manqué ndox da doon manqué gars yi tam problème mu ndox neuf ak dix mun ñu jëlee cours di ñëw appela appelant ñëwee foofu di ndox ak entraînement di waxtaan ak ñun feeso quoi. Mm-hmm. ñu ngi leen jox ay meew yi kii souvent moo tax ma doon dugal ay kii yu bëri dama doon partagé quoi. Mm-hmm. docteur bés yu ñëwee li mu njëkk def mooy defar ndàmbalaay néeg yi. Mm-hmm. mu defaraat ko. dindi yooyu suude ko defaraat ko normal nit ñi mën a tëdd en l'aise. te mën naa xat ba léegi nag sàmm am ñu xat léegi noonu la demee. mu demee noonu mu ñëw si ndox mi. dafa leen sa radeau si kaw ñoom benn boîte bu mag si kaw boo xam ne day wàccee ndox ñoom ndox léegi amatu amatu problème ndox xam nga dindi na yooyu waaw non ki fa nekkoon est-ce que mi ngi foon wala nekku fi parce que dafa ñëw même pas deux mois mu que ki fa nekkoon ki fa nekkoon liggéeyam dafa des kii bi mu ñëwee kii bi mu ñëwee moo tax question yi gars yi doon ko jox léegi bi mu ñëwee bu ñu defee la même même visite visite noonu la demee day ñëw visite quinze heures la woon mu def ko semaine la heures léegi journée day am kii vendredi day am mercredi day am aussi di ñuy gërëm ki nga xam ne mooy kan euh, Asina Ndiaye moom ku jàppale dut nii da nga ñëw bureau moo lay ak yi waxtaan ak comme problème spécial comme comme problème woote mm-hmm. da lay may nga woote si jàmm salaam di lay xelal lu baax di la digal lu baax ah passage bii lañ fa def di sant suñuy soxna sant suñuy grand sœur fi am ñu doon jógee nday sooy bu sama grand sa sonn si man allez il est là-bas aux États-Unis aussi. sama sama waaw aussi ndeyloo san gaa yëpp quoi am di am di aussi sonn si trop. maître Tall maître Mané ñëpp di leen sant quoi waaw franchement quoi lii la quoi. dernière question xaaral ma jël ngeen ñëw xam taxawaayu Pastef xam nga lan la. si koor gi. bi ñu duggee entrée. Mm-hmm. dañ def dix jours ñoom ñu commencé indi rek. potu meew suukar man dama am potu meew Pastef. di ko yónnee foofu mu ñëw tout le temps day ñëw yëpp daay day ñëw léegi même koor gi ñooñu di jox ay lekk ñu jox lépp comprendre nga léegi noonu la demee ba chambre yëpp nag mais na chambre yoo xam ne boobu euh, repas musaa ñëw souvent du jaar yoon dafa am fenn fi muy jaaree ba mu fit nag gars yi ba mu xam ko bi gars yi loolu loolu si lañ mm. ba jëf tayib après mu def si liggéey bu rafet ba nga xam ne fi mu war a dem mu fay dem noonu la ba nga xam ne gars yi génn nañ si jàmm. on passe en normal quoi. taxawaayu Pastef Abdou Lahad Diop. waaw taxawaayu Pastef moom. ku si nekk da nga koy xool ci sa bopp rek. ndax avant ngay dugg am na ñun jàpp ñoo nekkaloon nga am noo xamante ni nga ko doon def di doxal ak ñoom. Hmm. man bokk naa ci tax ñu gën maa jàpp. mooy sama nit lañ jàppoon ma dem di leen seeti ñooñu di ma woo téléphone. taay sib sonné jàppee. Hmm. moo taxoon bu nekkee kaso bi wax dëgg yàlla ñun dañoo nekkoon ay ay ay frère ndax ci biir nee naa la man fi ma nekkoon quarante huit euh, fi ma féete woon dañ ko doon wooye ruq patriote ndax néeg bi dafay ngand dafay yaatu hmm. dañ na wooye ruq patriote ruq patriote dafay am tout dafay am cere dafay am meew dafay am ndox yëpp yaa tout léegi nag képp ku nekk patriote yaa xam foo mën a jógee ñu su yónnee ko si loo soxla boo ñëwee ne ab laat nangam laa soxla dañaa xoolal kees bi hmm. képp kuy dugal da doo dugal sa tur soo dugalee ba mu ñëw da ngay ñëw indi ko ruq patriote foofu nga koy dugal ñu solidarité hmm. patriote bu fekkee dafa am lal man am ma lal moom bu si soo bu jógee patron patron lañ ko tëddee hmm. ba dafa mu yàgg ñu fa nekkoon te duñu ay patron dañoo amoon suñu complexe da ngay gis ku def viol sax takk bracelet boo ko waxee mu ne ah, ah, soo ko waxee ah, mu ne manifestant la soo baa nga hmm. souvent damay daan tooñ naan leen waa baax na da ngeen def def ay biti si àll bi ñëw fii naan manifestant la waaye dina ñibbi de bis bu ñibbee ngeen toog fi nag bu leen wax ne ay manifestant ngeen ngeen des si biir kaso <laughs> moo taxoon nga daan dégg gars yi naan ci plateau yi toog ci plateau am na ay violeurs yoo xamante ni ay manifestants lañ y a des violeurs là mais yoo xamante ni dañu tudd seen bopp ay manifestants duñu ay manifestants waaw mais xam nga rek surtout ñun niñ changé kaso bi mm-hmm. loolu moo tax ndax solidarité bu ñu fa indi ak injustice bu ñu fa jëlee loolu moo tax ñoom Mm-hmm. ñu ñëwoon bëgg nekk ay patriote mm-hmm. di leen remercier yéen waa Sénégal Télé Sénégal Télé Sénégal TV mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax baax di remercier ah, mamegal di di di ah, waaw waaw longue duration yi dafa longue duration yàgg na trop waaw longue duration ah, yàgg na di di leen remercier bu baax a baax di remercier ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi euh, di remercier sama ñaari soxna yu baax yi waaw madame Makhady Ndiour madame Diop soxna Ndeye Souare. di leen remercier bu baax mu nekkee fi xaw ma nu mu defoon ak ñaari soxna ñaari soxna loo mosaan wax dama naa la man sama ñaari soxna ñoo sama problème ndax xamuñu kenn ku man. boo mosaan fekk loolaay wax. ndax ñoom seen lépp man maa ko yor. di di di remercier sama sœur Adjaratou Ngane Thiam. moom it wax dëgg yàlla sonn na ci man. Mm-hmm. di remercier l' ensemble ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk département de Kër Massar. Mm-hmm. ak toute la commune de Jaxaay Parcelles. Mm-hmm. maa ngi leen remercier jëf Euh, Camara. Euh, mhm. taxawaay di remercier nag sama sama bi ma àndal Matar Camara. Mhm. mu nekk GPS Camara Yile Camara Yile mu nekk mhm. GPS Kër Massar GPS département Kër Massar moom it jàmbaar la moo gaa yi mu àndal yëpp wax dëgg yàlla. liggéey bu am solo ñu def ci jaxaay. voilà jërëjëf dañoo solidaire nekk agent municipal au de la commune Diakha ci mairie bi. d'accord merci. comme ni ko waxee euh, parce que man xam naa si dara parce que quarantine nu muy réew yëpp man maa nekkoon responsable bi. lépp lu ñëwoon sama loxo lay jaar. dañuy dugal foofu banana pom orange lépp mhm. ceeb day ñëw ñu def ko si ay barget mhm. yooyu Jóob Tayif moo ko doon indi dañuy indi foofu ay couscous parce que booy loolu la ñuy gën a soxla ay couscous ay cere mhm. su ñëwoon nii ay gari su ñëwoon nii damay xool booy yi nga xamante ne comme ñooy étranger yi ñi nga xam ne dëkkuñu fii parce que amoon nañu ay cas yu bëri si ni nekk ñooñu laay woo suñu ñëwee ba pare ma jox leen su mu leen joxee ba pare ma woo sama booy yi tamit ku nekk ma jox la ba mu des ba ñu xoolaale ancien compte yi ñu fa nekk ñi nga xamante ne nii ñu nax ñoom mun na dem parce que ñun comme si combat lañ nekk da ngay nekk ak ñun wala nga bañ a nekk ak ñun mais du la xeex dañuy xool ñi nga xam ne tamit amuñu moyen ñu jox leen ñoom tamit parce que moom franchement dépp buñ ñu jàppee ba ñuy dugg foofu ba ba ñuy génn man koor bi saa su nekk dañ ma doon dugalal dañ ma doon dugalal ginaar chaque jour dugalal ma dugalal ma ay brioche dugalal ma tàndarma su nu ñëwee ma jox ko sama booy bi alsaan ma na ko séddaleel. yow même boo na non man nag maanaam. maanaam man noonu man sama booy nañu lekk. parce que ñoom dañ maa takk ba pare xam nga man li ma gën a bëgg mooy ku ma cëral ñoom dañ maa cëral. Mhm. da ngay gis booy biy déconné sax chef de chambre day ñëw ba si man. yàlla day cëral. voilà rasak parce que man sama wax bëriwul woon foofu day ñëw ba si man mu ne ma ah, booy bi de lii wax lii bugguma ko mii de yàq kasoom. Hmm. dama koy woo mu ñëw ma ne ko eh defal nii defal nii su ne la bàyyil bàyyil mm-hmm. jeex na de boobu nag du ma gisati booy bi même suñuy xuloo kenn sax su ma ñëwee taxaw ma ne ko eh bàyyi day bàyyi mm-hmm. booy cëral ma cëral boobu noonu ñu dund fa loolu noonu nag mm-hmm. ba yàlla def ba ñu ngi génn par nànk-nànk mais ñu fa nekk tamit maa ngi leen di ñaanal ñu génn fa parce que danaa bëri ba tellement que mooy loolu mais suñu waa kër tam du leen mën a fàtte sakatuma sama mag Ismaïla Camara patriote bu mag mu ngi noonu moom moo tax sax ma dugg si Pastef moom ma sama soxna moo ba chef de chambre bi dafa ne ma mu yow man sa mbir man daf maa jaaxal. yow li nga fi nekk ba di bëgg def un an chaque jour sa bool day ñëw. chaque jour ma ne ko sama grand boobu kooku dopp Pastef la. billaay Seydina Camara. billaay Serif Laay. Serif Laay tamit jabaxate maa ngi koy ziar moom tamit di ko nuyu surtout sama jabar Kumba Sissoko. Mm. di nuyu waa Grand Yoff yëpp Pastef Grand Yoff yëpp maa ngi leen di nuyu. sant naa leen gërëm naa leen yéen ñi ñëw invité tamit. Mm-hmm. yow tamit surtout yow ngi lay remercier. parce que lii tamit yombul. Mm-hmm. ñun lii ñu am. Mhm. maanaam ki nga xamante ne nii suñu buggee wax loo xam ne moo nekk si dënn yi mu talal ñu ko ba Sénégal léegi ñëpp di ko seetaan di ko déglu kontaan nañu merci jërëjëf. jërëjëf man li mooy émission bi xam nga aussi dañ xaw a bett sax moo tax. Mhm. bon préparé mhm. après incha allah danañ mën a gën a. gën a waaw gën a renforcer gën a taxaw. parce que man lu bëri li ma bë li ma bëgg a wax. lu bëri kii noté wu ma ko quoi. parce que dama bett nii rek. parce que dama génn rek après ma commencé. def liggéey bi parce que man bu nekkee si biir sama travaux yi dafa tardé woon ñu yàqal ma ko sama benn gaañ keus ba léegi ñuy ànd liggéey Ousmane góor dëgg moom laa doon dénk yu bëri moom koy doxal yu bëri dafa yàqu yu bëri dama dem fekk chantier yoo xam ne ay xaalis laa bàyyoon pour liggéey ko ngaa mm. yàqal ma loolu mais loolu lépp après ñun ñu waxtaan si biir